sañse bu jaar yoon tissu bu baax lool boo ko bëggee demal seeti waa góor yombul tissu waa kër Serigne kër si yooyu ñu ngi nekk Guédiawaye rond point bu bees en face clando yi jëm si góor yombul tissu am na ñu itamit beneen boutique bu nekk Guédiawaye ca arrêt 27 bi xeetu tissu boo bëgg am na ci góor yombul nee naa leen tendance su ren ji foofu rek la mën ngeen ñëw woo ci 77 559 40 70 wala 77 660 07 68 kon nag gars yi bu leen ko jaawale suñu couleur mooy jaune bleu góor yombul tissu waa kër Serigne Babacar Sy yéen rek lañ fi nekkal. salaamaaleykum mbokk yéen ñu ñuy suivre seen site internet luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare tey mercredi. 29 mars 2023 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay comme ni ngeen ko amee chaque jour ñu ci ànd ak waa journalu sunu lamb di ci ànd ak les arènes point waaye nag Vice FM ba ca Gambie xam ne dañuy jël revue de presse bi comme ni ma koy waxee chaque jour di ko teg foofu nga xamante ni moom mooy seen rajo waaye nag Mbirkilaan FM ca Saloum maa leen di bu baax a baax même chose dañuy def di nuyu di jëmoo di nuyu Babacar di nuyu waa Mbirkilaan yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di nuyu rajo ba ñu commencé ko ci journal bi nga xamante ni moom moo di. wala boog ñu commencé ko ci les lesarènes.com lesarènes.com Abou Ndour tey dafa xëy def ab article bu am am solo ci combat bi nga xamante ne taxaw na war dox ci diggante Siteu ak ki nga xamante ni moom moo di Lac de numéro 2 mu mel ne tey tàllal na ci micro ki nga xamante ni moom moo di Kati Diop Amadou Kati Diop bu écrit bu écrit Fass Babacar Diom les arènes Bafa Gueye bu Fatick mu mel ni ki ñu njëkkee waxtaan wi mooy Amadou Kati Diop nee na daal Siteu dafa war a wane ni. moom war naa mën a daan n'importe quel adversaire mu mel ne indi na leeralee li tax mu wax loolu nee na mbër daal bu matee cinquante kilos war naa mën a daan mbër bu mat cent kilos loolu nag yaakaar naa ne technicien bi moom moo koy wax ba joxe ay information wala boog ay exemple ci combat ku mel ni mbay Guèye ak ki nga xamante ni moom moo di Moussa Diame mu mel ni wax na daal Siteu la nga xamante ni moom la war a aborder combat bi digganteem ak ki nga xamante ni moom moo di Lac de numéro 2 ak la nga xamante ni moom la ci war a liggéey moom Amadou Kat Diop moo xëy wax loolu keneen ka nga xamante ni wax na ci boobu boobule combat muy Babacar Diom nee na waaw Siteu mën naa daan bu baax a baax a baax a baax a baax kii nga xamante ni moom moo di Lac de Guiers numéro 2 waaye nag boo duggee ci biir da nga gis waaye nag lan moo ko waral nee na nag le fait que moom si moom Siteu mu croisé mbër boo xamante ni moom mu ngi mel ne Lac de Guiers numéro 2 loolu rek sens la ci moom waaye nag nee na. pour mu daje pour mës a bëri mbër boo xamante ne nag mën na ne mel na ne Lac de Guiers numéro 2 waaye nag pour nekk VIP il faut Siteu daan ki nga xamante ne moo di Lac de Guiers numéro 2 jàpp na ni mën na koo daan waaye nag nekkul loo xamante ne lu yomb la ndax dina entraîner entraîner entraîner bay bëgg a dee pour am ndam ci kaw ki nga xamante ne moom moo di Lac de Guiers numéro 2. nee na combat bu jafe-jafe jafe-jafe la ci sa moom Siteu moom Bafa Guèye moo wax loolu mi nga xamante ne moom mooy coach national adjoint moom nee na combat bi daal combat bu la ci ki nga xamante ne moom moo di Siteu nee na nag Siteu rampe na wane na ay preuve. yi tax mu mérité tey bëre ki nga xamante ne moom moo di Lac de Guiers numéro do am na ay sens pour daan tamit ki nga xamante ne moom moo di Lac de Guiers numéro 2 physique na waaye nag ku nga xam ne instant moo gën a moo gën a am compétition ki nga xamante ne moom moo di Lac de Guiers numéro 2 waaye nag tamit am na encadrement expérience ba mu ngay commencé dugg nee na li nga xamante ne tamit mu ngi nekk ci ginnaawam di mbooloo mu bare baree bare bëri loolu sens la ci ki nga xamante ne moom di Siteu loolu Bafa Gueye moom moo ko wax ci xalima ki nga xamante ne moom moo di Abou Ndour bu ñu jeexalee ci ci journal bi nga moom moo di journal sunu lamb ak Mamadou Koné depuis New York mu mel ni daal moom la nga xamante ne jàpp na ko moo di Sa moom moo ngay wutal ki moo di moo tax journal bi wan ñu ko ku ci nekk jàkkaarloog say public sol say gants di wane sa état de forme maanaam sa open press mu mel ni daal la nga Mamadou Koré jàpp na ko daal mooy làmb ji instant bi moom mooy Sa Thiès xoolul kenn kenn kenn kenn ku dul ki nga xamante ni moom moo di tafaatin ñaari ñu xoolante ba bëggante mooy Diène Kaïré ak ki nga xamante ni moom moo di Zarko mu mel ni journal bi tamit dalal na ki nga xamante ni moom moo di Diène Kaïré mu wax lu bëree bëri bëri mu mel ni dafa mel ni daal bu fekkee am nañu jàpp ni Zarko moo ko doole moom man moom jàpp na ni Zarko daal munu koo munu koo teree nelaw maanaam mu ngi mu ngi nelaw nelaw nelaw ba yàndoor wax na tamit la nga xamante ni moom moo ko boole ak ki nga xamante ni moom mooy Zarko ci côté yëpp la war a seen combat taxaw enjeu combat bi la ñuy xaar ci combat bi ca neexaay ba mobilisation ak leneen ak leneen ba ci préparation moom Diène Kaïré wax na lépp ci journal bi nga xamante ne moom moo di journal sunu lamb ci xelam ak nga xamante ne moom moo di Moustapha Guèye boo jëndee journal bi di nga ci am yeneen leeral waaye la la ci gën a wóor daal tam tënk koon muy ay wax moo di Zarko moom mënu koo teree nelaw te day nelaw ba kii moom bu nelawee tamit yandoorul ndax gëj a bëre muy guy gi Tyson 2 la ñu wax nag ak ki nga xamante ne moom mooy Forza Franc ba ca Pakala dafa mel ni journal bi ci xel Ibakan mi ngi ñuy wax ne daal ñii daal ñooy ay potentiel adversaire ki nga xamante ni moom moo di guy gi ndax gëj nañ koo gis depuis combat ak ki nga xamante ni moom moo di Reug Reug nekkoon le 20 février 2022 boobu ba guy gi moom demul dikkul journal sunu la ci xel mag Ibakan xëy fàttali ñu ko di ñu wax nag ay adversaire am waaye ñëw na li nga xamante ne moom mooy palmarès ki nga xamante ne moom mooy guy gi def na lu la vingt quatre combats am ci seize victoire moom guy gi am lu tolloog huit défaites loolu lañu journal bi wax ci ki nga xamante ne moom moo di guy gi journal wax nañu keneen koo xamante ne moom mooy buuru làmb ji di Modou Xarañ loo di ñu wax ne daal adversaire yi nga xamante ne am nañ ko instant bi muy Ama Balde ak ki nga xamante ne moom mooy booy Boy Niang journal bi daankaafu na leen de di ñu wax ne daal Modou tëddul di nelaw ma ngay comme un lion moom daal ma ngay waajal bu fekkee ñee ña nga ci seen moom it ma nga ci ruqam di entraîné di entraîné ba mu def bruit yaakaar naa ne moo tax journal sunu làmb jot ci di ñu wax ne daal Modou loo moom ma ngay waajal de digganteem bu ak Boy Niang waaye waaye ma ngay waajal tamit digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Ama Balde ñu des ba léegi ci Ilimane Lo borom njàmbur production ak la nga xamante ne moo ngi koy waajal pour le 30 avril di programme bu ama am solo diggante Lac ak ki nga xamante ne moom moo di Quench ku ne xam na ni am na combat yu neex a neex yoo xamante ne moom Ilimane Lo teg na ko ca ndax taqe xam ngeen ko bu écrit Lansar ak ki nga xamante ne moom mooy Youssou Ndour bu écrit léebu gi loolu ca jour ba lay am Petit di jarbaat ci Modou Lo wala doom ci Modou moom tamit war faat jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom mooy maamalam Lamine numéro 2 loolu yëpp war a am le 30 incha allahu rabbi le 30 avril fële nga xam fii nga xamante ne moom moo di arène nationale. ñu des ba léegi rek ci journal sunu làmb ak ki nga xamante ne moom moo di moom ak ki nga xamante ne moom moo di euh, Oligans ak doomu jàmbur ñoom ñu war a bëree le 26 avril incha allahu rabbi ñu ci ànd Production Ama Balde ba léegi rek la nga xamante ne waxoon na ko journal sunu lamb mu nga xëy di ci bënn di ñu wax ndax Ama Balde validé na li nga xamante ni moom moo VAR pour ñu dugal ko fële nga xamante ni moom moo di arène nationale d' na ci à cent pour cent ndax it VAR bokk na ci nga xamante ni day daal di leeral ci nu mu a gaawee depuis combat Reug Reug ak ki nga xamante ni mooy Sa Thiès ba daal wax na ko moo di Yaxya Jóob Yékini na mu na mais Yaxya Jóob Yékini ñoom làmb da koo nam ndax personnalité charisme ak li nga xamante ni doon na ko incarné muy loo xamante ni luy doxal làmb la moom daal nee na yu mel noon làmb daf koo namm kii tamit dafa mel ni moo remplacé ki nga xamante ne moom mooy Moustapha ab laat la nag bu journal suñu làmb xëy samp drapeau chef de l'État mu mel ne Dakar ku ne xam na ni waaja seen bopp bu jël nañ seen cinq mbër waaye nag journal bi nee na ndax Boy Kayre dafa remplacé kii di Moustapha Guèye mu mel ni dafa mel loolu dëgg la Amadou Kati Diop it ma nga ca wetu ki nga xamante ne moom moo di Boy Kayre mu mel loolu lañ leen andiloon ci journal sunu làmb andil leen ko tamit ci journal bi nga xamante ne moom moo di wala boog ci site bi nga xamante ne moom moo di lesarènes.com di nuyu ñuy bàyyi xel Lutte TV fu waay mën a nekk si àdduna bi ñu ngi leen di bégg bu baax a baax di leen ziare petit promoteur doomu nday Fall Fall Touba maa ngi lay bégg borom la 15 juillet diggante. Siteu bu Ngor ak ki nga xamante ni moom moo di Alioune Sèye Junior ak le 28 mai diggante Ziza nga xamante ni moom mooy Boussa Ketchup kon doomu nday Fall Fall moo de loolu petit doomu nday Abdou Tall bu xarañ loo maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare di nuyu bu baax ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Bass Pape Demba Kër Massar waa groupe Lutte TV du ma leen fàtte ñoom tuuti ay Sarr Omzo bu garga Serigne Ndiour Mor Jaxate di la ñaanal jàmm ak sutura di nuyu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy moo Ndiaye directeur Serigne Mado doomu nday liiru Diane Mansour Kassé bëgg naa la lu bari bari ak moor Ndiaye ak Afia ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Ablaye saar doomu doomu nday Lirou Diane rakk Lirou Diane waaw xam naa ne moom sa copain moom mu ngi noonu rek ay mbiram yàlla ci des kontaan naa ci yéen bu baax a baax di kontaan ci ki nga xam ne moom mooy Pape Cissé doomu ndeyu Ram doomu ndeyu doomu ndeyu doomu ndeyu Mama Lamine di ñaanal Ramadan yërmande yàlla ak njégal di nuyu bu baax a baax nga xamante ne moom mooy Baye Cheikh doomu ndeyam di jox ñëpp rendez-vous suba incha allahu rabbi sañse bu jaar yoon tissu bu baax lool boo ko bëggee demal seeti waa góor yombul tissu waa kër Serigne kër Sy yooyu ñu ngi nekk Guédiawaye rond point bu bees en face clando yi jëm apix góor yombul tissu am nañu itamit beneen boutique bu nekk Guédiawaye ci arrêt 27 bi xeetu tissu boo bëgg am na ci góor yombul nee naa leen tendance reen ren foofu rek la mën ngeen ñëw woo ci 77 559 40 70 wala 77 660 07 68 kon nag gars yi bu leen ko jaawale suñu couleur mooy jaune bleu góor yombul tissu waa kër Serigne Babacar Sy yéen rek lañ fi nekkal.